dajale tey ci suba mooy dama sàkkoon euh, euh, fanweer ak juróom ñett CLPA yi ne ci réew mi pour seen i coordonnateur ñëw ñu daje ñu waxtaan euh, ma déglu leen xam seen i seen i yitte yi nga xam ne en tout cas tey moom la ñu jànkonteel ci gox-goxaan yi ci différents acteur de pêche yi ñu yeggee ma ko ñu nit liñ ci mën a indi ci saafara léegi léegi léegi ñu indi ko li nga xam ne laaj na ñu saytuwaat ko pour justement gën gën ko càmbar euh, pour am moyen nu ñu koy saafara ñu ñu xool ko euh, jox leen ci ay assurance euh, ba pare itam vraiment en tout cas gën leen a ñaax ci liggéey bi ñoo ko bokk CLPA état moo ko créé kon jàpp naa ni coordonnateur CLPA buy wax man man de man noonu laa ko gisee dafa mel ni may wax dafa mel ni département bi mooy wax kon mooy fàttali loolu rek xam ni benn équipe bi la donc ñoo bokk liggéey bi dañu war Euh, lëkkaloo pour que liguey bi gëna mëna yomb pour ñu mëna ko jëm jëmale kanam mais fatini wax nañ ay waxi surveillance wax nañ waxi moteur yi nga xamné euh, yi gëna ndaw nga xamné mom la jigéen ñi di utiliser wala ñu nek ci ballon ak yooyu euh, wax nañ problème violence bi am ci géej gi. question yu bari lañ ko poser en même temps mais répondre na si question yëpp té liñ ko tawat jiiñ ci ay tawat. ci saasi dafa joxe ay directives commencé ko régler semaine prochaine rek ñu ngi war a jot 38 bateaux yoo xam te pour la surveillance la kon dañuy jàpp ni ministre bi kat moom mu ngi maîtriser domaine bi beneen bi aussi mu am importance mooy bi ñu woowee ci ndaje mi dafa fekk dafa mel ni dañu defaale formation ndax gis nañ DP mu profito ci jàngal ñu wax ñu fàttali ñu création CLPA yi wax ñu mission CLPA bi wax ñu attribution yi ci loolu aussi ñu xam ci ni coordinateur CLPA yi nekk à la base mu ñu doon syndicaliste ensuite mu ñu doon ay activiste ñoom li ñu doon mooy collaborateur ministère bi bu ñu amee li ñu wax kon dañu war a ñëw approcher ministère bi pour discuter ak moom pour trouver solution dem ci loolu ci loolu aussi ci lay wax ni am nañ satisfaction parce que bi ñu ñëwee rek ministre bi li ñu ko jooytu lim mën saafara léegi ni joxe na ay ay tegtal nañu saafara ko lim mënul aussi wax nañu dans le futur ñu toog pour waxtaan pour trouver ay solution te loolu moo doon suñu mbébét ak moom mooy que ni relation bi CLPA yi war a am ak ministère bi mu ñu am ko te mu fonctionnel